Moustapha di ab rappeur gu fekk baax ca ngay mexe fala màggee fala jànge fala dooree lii di rap jot na cee dund lu metti ndax ñàkkum jumtukaay yi ak ñàkkum producteur waaye terewul Moustapha ne xàddiwul mu ngi béy waaram ba tey ci mu ma hop bi moom mi doon tey ganuk ataaya ne la mu taamu ci lekk di ciw bulet <laughs> ciw bulet Moustapha <laughs> non <laughs> ci bulet man moom je peux dire que ni bon aw ma bañ parce que je crois que boo amee bañ rek da ngay sonn parce que tamit euh, góor dëkkul fenn da ngay dem parce que tamit je crois que boo boo amee préférence rek mën nga dem feneen tamit ba nga bëggee ciw bulet lay xam ne bañootoo dara ah? non bañ ma dara ça veut dire comme comme comme comme par exemple tamit euh, mën nga dem fenn comme supposons tamit parce que Sénégal lañ mën nga mën nga dem fenn comprendre boo amee ay bañ ak looy bëgg ak yooyu xam nga da ngay am problème da ngay am problème

ataaya. Euh, tamit may may may nuyu euh, sama sama gars yi ma àndal ñi lay toog euh, si plateau yi ma leen di jaajëfal parce que tamit je crois que nga nga invitation nga wax ko nit ñi. Mm-hmm. loolu je crois ñu lay yëg rek ñoo koy def ma leen di jaajëfal bu baax a ah. jaajëfal voilà. Sandiogou gannaaw moom dañu daal di wuti keneen waaye dugg ci langue politique gi. am na ci ñoo xamante ni nee ñu inscrire na. dafa euh, dafa euh, dafa gaañ woon. Hmm. léegi nag ñu ñu defal ko hommage. hommage defal ko vidéo mi ngi tuddoon Fatou Guignado Ndiaye. Hmm. mi ngi doon liggéey RTS. waaw léegi nag vidéo boobu noonu ñun bi ñu ko bi ñu ko defee. Hmm. dem nañ ba foofu noonu. ñu def benn caravane waaw. caravane période boobu def naa caravane euh, prévention routière. amoon na léegi dem ba RTS ñu jox leen kii bi. ñu jox leen son son bi ak vidéo bi. te je crois que mu jàllale wu ñu ko. teguñu ko te période boobu période boobu. RTS ñoo yàgg mën lu ñaaw yëkkaleel boobu te période boobu. période boobu coupe du monde bi ñu jël aaki moo ko bañ bu bañu moo tax ma mere leen te période boobu période boobu je crois que ñun RTS ñun ñun ngeen def loolu seen caméra woman waaw ñu dem ba foofu noonu RTS ngeen def kii ba nag jox leen son bi teguñu ko son bi oh, teguñu ko loolu ñaaw

en ah, fait voilà. voilà ñu ñu ngi koy tàccu mooy doomu bàjjanam bi merci c'est bon voilà mais c'est que li mu way nii li mu def ni béti hmm. li son bu am solo la li nga def nii vraiment hmm. texte bi am am na am na solo quoi te puis kii na lii je pense que lii ngeen defoon de moom la joxe RTS nii ngeen ko joxe RTS nii lañ ko defee woon nii bañ koo teg lañ ko defee oh. ban la woon mooy ay deux mille deux mille deux deux mille deux te ba léegi c'est d'actualité ndaxte yi ba tey mi ngi mi ngi mi ngi bari ndeysaan moom li waroon na ñëw ko lu yàgg moom xam nga moom artiste bu yàgg la waaw léegi nga ne oto total am nga ñaata single bon instant bi am na am naa cinq cent cinq am cinq cent eh, léegi yow quatre-vingt-seize ba nga cinq cent ah non comme par exemple kii ma xoolal

amone un un mais lutax tax def comme ñeneen ñi ñi def bu ñu bëggee visibilité dañuy ñëw Dakar euh, def seeni clip def seeni hmm. enregistrer seeni seeni seeni morceau lutax même bu da ngay comme par exemple comme comme par exemple comme xolé euh, comme comme ñun bu Comme formé famille. mom lañ dem ñibbi comme que 96 <laughs> dégg ki def contribution. non non. déedéet. na la dégg non non bàyyi ko la dégg bàyyi mu wax rek. ñu saxaay rek. pour nga pour nga dooleel ko daal nga dooleel ko. ko. aywa bétti dañ ko dee ko comme par exemple euh, hmm. bétti sànq da nga wax que ni euh, comme pour ñu am visibilité foog ñu ñëw ba Dakar non dama ne lu tax du ngeen ñëw wax mooy foo ngeen ñu wala ngeen xool des voisins moyens yu ngeen jaar man boo xoolee pour faire connaître boo xoolee man bu may def euh, musique hmm. comme comme comme supposons man maa ngi chaque fois dama doon jéem a xool lu mengo lu mengo hmm. ak ak jamono parce que souvent bo xolé comme période bobu non ñu bari dañ dan dem ci DJ yi ñu leen def euh, ki légui man euh, instant bobu non parce que mm-hmm. taxna ma yeew mhm. comme supposons ni mhm. euh, am am na jeunes yu bëri yu nga xam man maa leen di encadré mhm. maa leen di parce que lim leen di teg yoon de telle sorte que a ñu bañ a eh, déraper présentateur rappeurs aussi dañuy faral di am ay problème ak yooyu yan problème la ñuy jànkonteel ci rajo yi ngay wax comme par exemple ni am accès si média yi waaw des fois nag animateurs yi jubóog rappeurs yi problème la dama daan gis ñuy giita ngaas rek xam nga luy problème je crois que Euh, bu fekkente ni animateur nga. Mm-hmm. Euh, animateur euh, rab mm-hmm. da nga war a xam rap ça veut dire que da nga war a da nga war a dugg ci ki underground bi carrément. Mm-hmm. comprendre comme par exemple ku mel ni man. Mm. ku mel ni man mm. bu ma yoroon émission rap dama koy teg si yoon day jaar ah, yoon. kii place lay wut. mais yow rajo ba nga nekk rap nga fay jaar man. yow kii ñoom. ñoom daf la bëgg a bëgg place ñoom daf ñoom ngay lar waay waay kii yee dangereux yow ma defee ne dafa ñëw pour suqali ko ci rab ndekete place lay jël nee na comme man mii. waaw ba tey ba kii ba tey mm-hmm. ba tey ba tey mën naa ko mën naa mën naa ko ni euh, l'homme qu'il faut a la place qu'il faut. Uh-huh. Ah. place lay wut l'homme qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. parce que je crois mm-hmm. man instant bii nii man mm-hmm. maa man maa mën a défendre rappeurs yi. Ah. de telle comme par exemple. kon yow yenn yi fi nekk dugg ñu ci underground xamuñu bu baax li ñuy def. am na animateur yu bëri yoo xam ne je crois que. eh Dof Diop dafa dugg ci underground. yaa ngi koy déglu Black Label Dof moom moom moom bokk ci loo ci yaa ko gën ay xam nga Dof. waa xam nga Dof Diop. Dof Diop maîtriser wu ma ko. ah d'accord kon loolu mooy kon yow xamoo xam naa rap. Dof Diop xamoo ko. Black Label. kooku maîtriser wu ma ko maîtriser wu ma kon yow daanu nga. xam naa rap wuy ma. xam naa la bu baax. waaye kan mooy link. yow yeggaleel. <laughs> eggaleel eggaleel <laughs> eggaleel. rap rap mm. maîtriser naa ko bu baax. Mm. parce que je crois que kii defee liggéeyam warul xaar artiste bi ñëw si moom. Mm. parce que fi ñu toll nii yow supposons yow bu fekkente ni yow artiste nga euh, nga nekk euh, nga nekk sa gàlle di xalaat bind say texte. yeneen ak yeneen comprendre léegi nga génne sa xaalis nga dem studio. léegi nga bëgg a dem si animateur nga fay ko xaalis. Hmm. pour nga fay ah, ah, pour nga fay nga fay fay. non waaw taxaw ah, a kon yow da nga ñoo fay. taxaw taxaw da nga ñu fay. waxuma waxuma leen ah non il faut ñoo xamante ne dañuy laaj xaalis kon de ko amul waxuma leen yéen ñoo fay waxuma leen yéen ça na ñoo xam ne saa ñëw am na ñoo xam ne non wuy ma loo gis lu ne si àdduna am na am hmm. na exception loo gis si àdduna am na exception amna ñoo xam ñi ngi def seen liggéey amna ñoo xam parce que je crois que bu artiste déjà le fait rek utiliser sa xel. Hmm. loolu rek parce que tamit ak ak je crois que animateur si hmm. dem mu dem mu dem si comme par exemple man. animation rajo laay def. Hmm. daf ma jaral may ma dem ba ay côté Casamance. dem dem yow ban rappeur nga fa génn di def euh, di di ku mel ni naturel. Hmm. naturel naturel mi ngi dëkk Kolda. te pour te dire rappeur bu nga xam ni mooy premier rappeur bu nga xam ni def na fa benn euh, concert feesal stade. mais euh, animateurs yi nag mënuñu dem vers ñëpp. ñenn ñi aussi ñoom ñooy dem vers les animateurs. yooyu ñeen tamit nag attends attends boo bëggee dara boo bëggee dara. boo bëggee dara a wax boo yaay si def moyen. kii quoi.

Kolda Kébé ah, ñoom dañ ne moom affaire bi link la quoi ben affaire la bu gaay yi kii ñoom ñooy dox ci sen biir quoi léegi supposons Sadio mom pour mu percer mi ngi ne il a fallu que mu ñëw ba Dakar hmm. comprendre hmm. léegi nak affaire buñ ko xawoon décentraliser tuuti hmm. ñom je crois que amna yeen yenn sax duñ ko duñ ko duñ ko daj xam nga sànq sa biir question ya ngi wax que naan que que nek na ci rabbi bi aw ma avancement wala affaire dema non amna ci amna amna naa expérience de telle sorte que je crois que ñeneñ ñi mën na leen tek euh, euh, tek ci yoon ok ex mais je crois que du noonu. Mm-hmm. ñii peut-être ñii dañuy nekk si kaw ñii nekk si suuf. mais yow yow yow yow. Ah, d'accord loolu ci liggéey bi la mais mais nii nii nii da am nga ambition génne album. Ah non cinq matalagut des na benn kii moom la yàlla xaar dans deux ans. ayca ma dem fee. waaw waaw am nga ambition boobu. mi ngi ci sa xel. wala da ngay def say son rek di sànni. waaw instant bii nii instant bi benn si benn projet la. Mm. si benn projet mooy comme projet prévention routière bi. waaw comme fee dama man dama see defoon. ah foofu da nga fa gis kañ. déedéet du kañ prévention routière rek déedéet du kañ du kañ. ok du kañ. mais boobu texte bii nga fi door

nga ni. yi nekk si télé yi. nañ def seen liggéey ñu may sens maanaam. ñeneen ñi nga xam ne am nañ talent. ñu wane leen ñu wane leen wala man mi ñu jox ma bagage ma wane gars yi. place lay wut. waaw place lay wut. boobu ba di nuyu borom kër gi waaw. di nuyu Sénégal ñëpp. pour la prévention routière trop d'accidents sur la route maintenant il faut que ça cesse.